bismillahi rahmaani mbokk yi su ngeen déggoowe xasida gu am solo googu sunu maam maam Moussa Ka di pël bi jàngal wolof yi wolof taalif ko ci tukkib géej gi nun ñépp fekki fan yu néew nu ànd ñiy jël avion ñu jël oto ñu jëli saret ña jege dox ñëw ñëpp daje fàttaliku tukki bu rëy bii nga xam ne lu ne xew na ci sërite ba rëy lool dem gi yërëmtalu woon lool waaye ka doon sabab tukki ba day tubaab ba bu ñëwaatoon dana xam ne la sëriñ ba waxoon ne buñ xamoon la yàlla nar ca yóbbu gañ ma yóbbi jurbel duñu ko def tabaarakallaahu loolu mooy xew-xew bi ñuy dëgmal ñu am nag ay tomb yoo xam ne ñu ngi ko jële ilaa ñu ngi ko jëmee ilaa Serigne Mbacke Sylla <laughs> noonu la tudd waaw ilaa Serigne Mbacke Sylla wallaay ndeysaan Serigne Mbacke sunu tomb bu njëkk yi bi jëm ci yow xam naa peut-être RP doon wala revue de presse wu actualité fekk la foofu xëy na ci itali ngay ci amerig ngay doora a julli tàkkusaan xëy na fekk fa Jaw fële moom muy ndékki moo di waajalug màggal gi waajalug màggal gi bu weer wi feeñ ak tey nit ñaa ngi ci safar yi foo romb ci dëkk bi ñu ngi safar bu subaa incha allah ci la Sud FM seen rajo moom tam di def safaram kala aada màggalu Tuubaa nag ñi ci réew mi xam nañu ko ñi nekkoon ci réew mi te jóge ci réew mi tukkiit xam nañu ko rawanat ñi nga xam ne ñoo dëkkee Bawal xam nañu màggalu tubaa nun ñépp nañ ko waajal te ñaan borom bi mu yóbbu nu ci ak jàmm bu nu demee nag sëriñ bi nee bu ko bu kenn ñëw rek nekkee fi nu la neex moom mi ko woote daa wax ne ku fi ñëw ku fi ñëw nañ la séen ci fa ñuy jànge alxuraan nañ la seen fa ñuy jànge xasida koo jege berndeel ko koo jege rek berndeel ko ñun ñi fi jógee dem xam ne léeg-léeg gan ñu soxla ndox xam ne léeg-léeg gan ñu soxla téere xam ne léeg-léeg gan ñu soxla xasida xam ne léeg-léeg xam ne léeg-léeg yooyu gan ñuy soxla kuy dem ci noonu na ko yóbbaale soble xaw na faa seer ca nañ ko waxe waaye waaye nan jënduti nii saako yu soble yóbbaale <laughs> jënd suñuy saako ceeb yóbbaale jënd wut suñu xaalis yóbbaale ak suñuy nàngam waaw jàppale gan ñi ci boroom gan ñi lu am solo la sëñ Mbàkke ngir nga liggéeyal Moustapha may géej ngir boobee ilaa sëñ Mbàkke si la tombam ñaaral bi sëñ Mbàkke mooy gone yi bàyyeeguñu dem Europe gone yi bàyyeegu ñu dem Espagne bi mu fi jóge ba tey sëñ Mbàkke barki démb dafa am gaal gu fi jóge gu defoon téeméer nit yu teg ne ci ndox mi ba seeni bokk jaxle gaal ga jékki-jékki teer cim réew ba nu seetee gaal ga nu gis ne lëm indi ëppul fanweeri nit anaña ca des des nañ ca ndox ma nun ñii de am nañ ci ab ab jarbaat boo xam ne ma nga dëkk ca mbàkk ca sunu koñ bokk ca ña des ca ndox ma ci lin gisagum ndax list bi ñu indi keroog day bañ fa demee gis ñu turam ca liste ba ñu dellusi si sëñ Mbàkke gon yaa ngi dem ba léegi am na ñoo xam ne sax fi ne dañu ñoqli dem ilaa Amerika ñenn ñaa ngi tag fii ci Maroc ay téeméeri téeméeri am nañu barki dem la doon indi jaar leen ci yoonu suuf yi sëñ Moussa Gueye la ñu àndal noonu ci jasaawu sakkuuru jé jasaawu sakkuuru géej gi yàlla na ko yàlla yokku wér tabarkalla te soqli daaraam gon yi dem ci géej gi jar na toog waxtaan jar waxtaan te bàyyi boo waxee ñu ne ma ngay sànni xeer jar na toog waxtaan te boo waxee ñu moytu ma ngay xalam jar na toog waxtaan ndax réew mi sunum réew sunum réew de mooy sunu yaay démb boo liggéey mooy nekk sunuyaay waaw kon nag jar na toog waxtaane xal yi lu tax ñuy dem dëgg la léeg-léeg ñu ne li ñuy paase ko ko fi toogoon liggéey yenoon yenoon a maanaa de waaye nag ndax noonu la demee yenoon na maanaa nag ndax waaye ndax noonu la demee ki jël ab cinq cent mille un million deux million joxe ko pour dem joxe ko pour dem ñu ne ko bu toogoon fii liggéey am ci dara ma ne yenu na maanaa waaye nag ndax nun lay deme fii kat léeg-léeg kopp koppal jenn waay jaar fa këpp sa yalwaan waaw léeg am dara jëndub otoom di di di di di di bagage kopp koppal ba am dara jenn waay ñëw këpp këpp yalwaan ba nu muy def day dem jëndub terrain wala ñaari terrain jenn waay ñëw jaay terrain boobee muy dox ko dikk rek waaw waaw yenoon na maanaa de waaye est-ce que noonu la léegi léeg ñu ne gone yi ko fi toogoon bay wax na dëgg de gone yaa ngi dem Espagne di dugg ci tool yi am na ñoo xam ne ba ñu demee dañoo dem ca tool ya waaye tool yooya ah dafa amul fii ci tool yi ndax tool boo xam ne boo xëyee liggéey boo wàccee ñu teg sa loxo dara nun suñuy tool fii léeg-léeg gerte lay doon comme sama tool fi ne mën a guma caa yëy lu <laughs> trois maa ngi nii mën na ca mën a guma caa buddi gooñ yëy warkal ak yu demee ni yooyu hectare bi mënuma cee am million léeg-léeg ma bay juróomi hectare bu ñu nappee du ma am ñaari million kon nag mënees na fay liggéey de waaye nag li Oustaz Ahmed Dame Ndiaye di wax rek ñëpp neexut ñoo wutal liggéey waaye xanaa sécuriser nit ñi li liggéey ku ci nekk lam nekk di liggéey di kopp koppal ñu bañ a seetaan kenn muy këpp yalwaanam di seen balab doom gis fa téer ak war ca moomaat la yàlla xal seen xol ya sëriñ Mbàkke gaal googu nga xam ne moo jóge woon faas jóge woon faas téeméer nekk ci ak lu topp bi ñuy jooy loolu ñu ne geneen gaal ma ngay déparé barab sàngam hmm? waaw bi ñuy jooy ñu ne geneen gaal ma ngay déparé barab sàngam nga xam ne la faatu ca gaal gee tiitalul waa gaal gii kon am na lu xew am na lu xew te it nun ñi di waaraate kat mun na waar gone yi ban toog déedéet ñi joxe ndigal it joxe ndigal ba gone yi toog yombut de kon yaa quelque chose xale yi daan dem ci géej gi di indi teraanga ku dem ci géej gi léegi doo indi teraanga ndax géej gi daa am ñu leen dàq napp ñëw di napp ñu jox leen ay licence licence yooyu la gaa ñi wax ne waaw licence yooyu ndax muntoon a ñàkk licence yooyu la ca jógee bu delloo woon ci géej gi delluwaat ca gone ya gone yi toog maa la ko wax sunu borom di wàcce na ñun defal na nu géej def ci yebooy géej gi am na am na jën am na xaw ma turu jën yi waaye daal fi ndaw ko ndaa jege woon di ma ko déey ma man koo wax ne ko jën yi am na ngot ndeysaan gisutuma ngoot jamono yi astu laa ko daan gis ngot aw jën la boo xam ne bu ma saan ñëw buñ ko tegee ci kaw ndab li dañuy tegaale ay ay ay nenam ci wetam man xaw ma jën yaa ngi nenam déet ba léegi waaw xam naa su ma xëyee incha su fekkee ne teelu ñoo dem juma danaa dem marché poison fi ñuy jaayee jën yi ma laaj Mouhamad tëw waaw ana jën ana neenu jën ndeysaan mooy bocc ay gobar kenn mësu ko gis rek bu ñu jóg bu ñu door jóge daara saan nga xam ne donc daara léeg-léeg du du du gaaw a suur yaastu nanu jën la doon lañ lañ ñu doon <laughs> leexalee ndeysaan bu nu leexale ko xaw a niruy nit yàlla nu yàlla yërëm waaye jën ya dem na nee nañu licence de pêche yi ñoo yóbbu jën yi yenu na maanaa nag xam naa li gars yi wax ne ñu ubbi enquête jar na ubbi enquête ba xam est-ce que loolu ni ñuy wax noonu la deme wala déet ala kulli xaal ñi daan xëy dem ca géej ga indi teraanga boo boo xoolee boo xoolee keesu jënu yabooy ñu may la ko nga dem léegi ba keesu yabooy ga pap jëy amu ko loolu àdduna ji tukki la ala xaal géej gaa ngi noonu ña ca nekkoon nag kayaar waa kayaar ñoom waa waa Mboro ñoom waa Mbuur ñoom waaw ak ñi wër géej gi daan xëy dem ca géej ga seppi dara indi sa kër muy teraanga ba ma saan dem kër yaayu doxandéem day saan ba nu jël géej jën yi e, loo def ñu may la keesu jën waaw léeg-léeg yaayu doxandéem day saan wut fa dàmb ak dàmb juróom benn dàmba keccax ak juróom benn dàmba yi ndeysaan ilaa ilaa daara Ali Imran yal na yàlla def ko ci téere jëfam waaye loolu moo jafe nag léegi yaa quelque chose ya far nandal ko kaasi poson malaa ko far mandal ko mu dal si mbaañ keroog Sëriñ Mbàkke xale yi it di dem ñu wax ne mbay mi da bay ba mbay ma jeex nga jaay doo tedd kon mbay mi jar naa soppi tracteur yaa ngi fi nee nañ xaalis baa ngi dem ci mbay mi te gisuñu dara waaw maag tukulóoru bàyyi mëla ca Kaolack danañ dégg nag ñu ne ay milliards dugg na ci mbay mi jiwu bi nangam nangam nangam engrais bi nangam waaye daal ca dëgg-dëgg yaa quelque chose ca dëgg-dëgg yaa quelque chose safar yàllaa ko booleeg Moustapha Gaal Badar keroog bu dee ci càmm gi ñoom Ismaïla Sow ak ñoom Samba Dadal misal mi nii ma euh, danga nga daan am sa gét maanaam nogo yi naa jël nogo yi nogo yi amoon na gét xar yi nekk nii bëy yi nekk nii ak i ganaar nogo yi amoon na ko dem nañ fa maag sëñ Mbàkke Sylla waaw mu mu defaral ñu soow waaw ñu saboote ko maag sëñ Mbàkke ne ko am ay gan defaloo lul soow waaw ci déwén sa ndeysaan ñu ñëw mu toggul nu ganaar ci te toggum na koy toggul nu ganaar maa ngi ñu añ ba noppi jàll buleel bañ delsee ca rajo ba ne as nganaar lañu lañu lañu toggal te te da koo baxal ganaar gi niixut <laughs> waaye ci delsu bañ delsee ndeysaan mu reel nu xar <laughs> daan ñu koy waajal ne xalaatee du ngeen wax dara <laughs> bi ñu ba nopp maa ngi mbàkki jàllu buleel bañ dellu si ñu ne ko ah <laughs> asxar da nga no réel waaye loolu li muy tekki mooy nogay amoon na amoon na gétt ren dina ganaar ganaleenu ko ren na eh, defar na soow ganaleenu ko defar na nen ganaleenu ko ba nim àgg ci ci xar waaye xar fi ne nogay di situt mel xar jenn waaye fa ñëw fekk na koy am juróom-ñaari xar mu yewi lépp yóbbu ba démb feeñagul ñu ubbi enquête yooyu buy am cim réew di am cim pénc ñi nga xam ne ñooy sa ñooy yar jur dañuy bàyyi waaw sëñ Mbàkke beneen tomba nga noonu ba am salaam bu la dellu gannaaw voltes bi waaw alxuraan nee na bu kenn di jàkkaar jàkkaarloog sab noonu di ko woon ginnaaw bolub ginnaaw baaxul ci góor góor balub dënn moo koy rey ko wax de <laughs> loolu alxuraan wax isaa laqitum la si na kafaru wéy leen bu leen dellu ginnaaw fas la faltas biru maam Moussa Ka ca jëdaw sakkuuru géej gi bayandu tukki bi géej gaa ngi toll ci Louga tabarkallahu sëriñ baa ngi dem mi ngi dem ilal bahar mi ngi dem ila rihla al bahriya bi ñuy màggal ci fan yi ñu dëgmal mi ngi tollu Louga tabarkàlla la ku dégg laay ji duutoo tiit ku dégg ji duutoo tiit mukk doo tiit ku la xeex doo tiit ku la xupp doo ku la xomb waaw inna allah yudaafi an lasina amanu masin ba fam di sabal subhanahu ilaa sëriñ Mbàkke Sylla sëriñ Mbàkke mu def beneen tomb mu ñetteel bi mooy accident yi ba léegi mu ngi am wàññi kuur léegi nag dafa am lu ci aksi sëriñ Mbàkke mooy tabax ba màbb na tey daa am tabax bu màbb wala démb juróomi nit ñoo ca des ñenn ña am gaañu gaañu te penc mi am na ñu def ay technicien am na ñu technicien yu jàng mbirum bâtiment nga xam ni képp kuy tabax ñoom nga war a seeti ñu wax la ne da ngay tabax R plus 1 wala R plus 2 wala R plus 3 nga wax li nga li ngay def ñu ne la kon war naa am nangami pie pied bu nekk war naa am nangam ci béton nangam ci feer nangam ci ciment nangam ci suuf bu nu ko boolee ba nga def ko bâtiment boobu yow ba nga ca dëkk ba màggat say doom dëkk ba màggat ñu ne dëkk ba màggat bâtiment ba ne fa lëng naa la ko wax waaye sunu bâtiment yi nga xam ne bu fekkee da ci war a def quarante million ci bâtiment bi da ngay ñu ne la man boo ma def joxe vingt mille ma tabaxal la ko boo ma joxee vingt mille ma tabaxal la ko jën waay ñu rek coqet coqet coqet teg ca yëf ya waaw woo Malick sàll mu mu mu ko ay móol yu funux móol yu funux nga ñam-ñabal ko jox ko ay locataire ndeysaan yàlla nu yàlla yërëm mbokk yi yàlla xam na ne bu yoonu ñëpp ñun yàlla nu yàlla yërëm gis nga bâtiment yi daanu ni fi ne recensé woon nañ fi beneen am nañu nangami junniy bâtiment yu ñu war a wàcce waaye est-ce que daañ ko wàcce yow léeg-léeg nga romb benn bâtiment rek sa yaram bi day daw xanaa fàtteegu leen suñu bâtiment bu woon ca géejewaay maak laaj sëñ Mbàkke si la ñu àndaloon waaw yëg ca bâtiment ba toog gan ñi di yëg noom yi di nu fekk ci bâtiment ba rek ban ànd ak bâtiment ba nun ñëpp ni ci suuf këpp waaw y a un mort et quelques blessés <laughs> ci ci bâtiment yi ci bâtiment yi yee la bokkoon ndeysaan waaw ba muy RP <laughs> nga fa ba léegi ndeysaan waaw mu nu Sall Sall jot naa seen eh, taaxi àllaaxira ya mu ne ko wax nga dëgg de sa law seen naa ko di waaw sëñ Mbàkke xool ma rek moom daal di xëb moom kenn mësu koo gis rek waaw daal di lox ndeysaan xam naa jàpp ne eh, sëriñam bi gaañu na sas gaañuwoo mu ne déedéet gaañuwoo mu ne déedéet mu daal di waaxu fee dem del siwaat tànk ndox jox ma ne ma naanal daal di ñëwaat ne ma gaañuwoo ma ne ndeysaan kenn mësu ko gis rek <laughs> xadimu silmadino alla ma ne moo jot ba teg 23 minutes fii studio Sud FM seen rajo yéen seen émission Al Bidaya euh, euh, sëñ Mbacke Sylla ma nga fële ca Ita ca Amérique moom lay jox tomb yi ilaa sëñ Mbacke Sylla la jataay bu tudd si léeg-léeg si jumaate lañ ko tàbbal waaw ci néeg bu lëndëm noonu ya naan ko lambal kon sëriñ bi jóge na ndar mi ngi toll fii tey ci Dakar fee ca port bañ ko booleeg eh, néeg bu lëndëm boobu noonu ñu naan ko làmbal mu daal di jublu xibla daal di kabar nee na keroog nga ta su joot ngir terter lay ndeysaan foofa xat na lool neexuta su jooti neexuta julli saar baqara ñim daana rakka bu njëkk bi ginnaaw fatiha ba ak baqar la jàng ñaaru rakka bi ginnaaw fatiha ali imran la jàng jibril ñëw tijji bunt ba tabarkalla maam Moussa ko jàng keroog gis na ma sunu maam jaara accident yaa ngi am taax yaa ngi daanu léegi nag maçon yeeg technicien yi ma lu xew lu xew njàng mi moom mukkut walla nit ñi jaarul ci njàng mi te kat ku des kos ñëw sa kër daal ne taxawal leen liggéey bi nga jël yat waaw fu nu teg fekk ab tabax daal ne kii waruta tabax nañ ko màbb ñu dugal sentiment dugal yërmande dugal sentiment dugal yërmande mooy rey ay gaay yàlla xam na ko waaw ñab-ñabal kër luye ko waaw Pape Dieye bu fekkee ñàkk na pexe daal ñëw joxe avance am dëkk fa waaw léeg-léeg bu guddee bi tam sax léeg-léeg muy senn ci kawam <laughs> yàlla nu yàlla yërëm cey le Sénégal comme ça waaw le Sénégal comme ça bu tudd Ibra binte mu di ko tàggal yal na yàlla xëy ko fay amiin yal na yàlla xëy fay soxna aana fay yal na yàlla xëy fay soxna aana fay ma doon toggal sëriñ bi moolu keroog la doon bëgg jaar ak noon ya njol maaka aaya ko mu jéggal noon ilaa sëñ Mbàkke si la sëñ Mbàkke juróomeelu tomb bi mooy taw baa ngi wàcc mbedd yaa ngi fees am na barab yu tane nag waaye taw baa ngi wàcc mbedd yaa ngi fees nun nag sunu boor bële moom ca cité enseignant bu kunun la fa nekkoon na fa nekk ba léegi la fa nekkoon moo fa nekk ba léegi fa ndox moo doon taa ma nga fay taa nam doon toll ma ngi koy toll daaru ci bu tëj na fi ne amul wenn yoon wu jëm daaru ci lu dul tali ba rek sëñ Mbàkke ma wax la su may dem daaru ci bu nu may def <laughs> su fekkee rajo bi laa jógee dama jël VDM 3 gudd na gudd ba toll ñu Dakar ak njaarim daanaka waaw door mën a dugg daaru ci mu dellu xibaar ko su fekkee piyaas laa jaar sëñ Mbàkke damay fay mille francs fayaat quatre cent door a génn ca sortie dix jël góos yéeg pont ba dem euh, croisement konoon waaye su ma jàddee dugg ca ndox ma lay jëm nu may def damay continuer ba kër Njaay romb ko dem ba njaxirat ca croisement ba jël góos fu ma jëm maa nga jëm ca croisement wu Lagros ba ca croisement euh, wu ñàgg ba fu ma jëm door a dem tableau daaru jël góos dugg daaru allahu akbar waaw chaque jour mille quatre cent aller mille quatre cent retour bu fekkee deux fois laay dem mille quatre cent fois fois quatre waaw yàlla na ma yàlla yërëm mayit it waaw heureusement am na jenn waay ju wax ni moom eh, li des ci dundum gi bu soobee suñu borom weer bu mooy dugalal Alioune Sall cré crédit euh, crédit euh, rapido waaw sunu rapido yi xam naa ñoom jong daañ ci góorgóorlu nag parce que rapido ca réewi tubaab boo ko jubee lu mat fukki mètre rapido ba jóg bàyyi la nga dem noonu nag da ngay dem ba àgg daal di dindi sa deuxième def première song bant bi mu ne këj nga dellu ginnaaw sonk mu ne këj ñu ci sa ginnaaw kalosone la nga ne gars yi fa nekk waaw lu xew ñoo la doon machine bi ma am problème quoi mu ne est-ce que yàlla nu yàlla yërëm waay bu dee yu tubaab bi da nga ñëw doo doo tegg sa tànk ni nga doon dawee nun ngay dawee waaw xam am na ci rapido yi nag xaw a tane boo xam ne bii moom boo ñëwee moom ba ngaa tegg sa tànk gaa waaye boo ko jub rek mu ne ciib daal yëkkati ko nga nga génn dem nan ko def noonu rek la ko waay ndax embouteillage bi xaw a wàññeeku sëñ Mbàkke loolu mu ngi fii xew bu léegi ala kulli su may dem ndeysaan daaru ci bu nun laay def su may dem cité enseignant bu koonu nit nun laay def ndax bëgguma la ma daloon daaw dalaat ba ren dugg ci ndox ba rek day sànn vingt et une heure ba minuit waaw <laughs> man netti la ko fat jàll mu xëm <laughs> comme moom bu gisee sama oto bi rek yaramam daw ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm moom it. tamaat. <laughs> si waxtu yow ma bi jaay la siin sëriñ Mbàkke kon taw baa ngi ñëw tey jii am na ci réew mi barab yi taw yu bari météo nee na bu subaa tam dana amaat ay taw waaye daal ah àll ba dee bëgg nañ taw dégg naa démb kuy wax ci wax sa xalaat nee na nun waa Dakar noo leen xañub taw ndax nun dañuy coow rek ci taw bi nee na nañ bàyyi taw bi mu taw mu ko ah, wax nga dëgg de xanaa nga baal nu rek tabarkalla <laughs> ah, waaye fi ne <laughs> techniciens yi nga xam ne ñooy wul yooyu ci wàllu mbay di wut ci wàllu ndox war nañu mën a def noo xam ne suñu ndox mii ci dakaar Dakar léppay daje ci benn tiwa tiwa bu yóbbu ko Taïba Cekkeen yóbbu ko Calle yóbbu ko Duy Sangu yóbbu ko Calaaga waaw yóbbu ko Toobeen ñooña di bay ci ci ndox mi tey fay lu yomb waaw di bay sobleeg supp meeg nawe waaw ak karoot waaye malheureusement loolu day Xadaafi defoon na ko cëm réewam sànn rahmatullahi alayhi ahiri walaatina li tayaban abdan sakuran xaatina yooyu bayit la ma mboxoon baari ba defar asma waalul badri ilaa sëñ Mbàkke si la sëñ Mbàkke ñi ngi waaj 2024 élection présidentielle yi euh, mbër yaa ngi yokk xam na waa conseil constitutionnel yi nga xam ne ñooy tëral yëf yi tëralaguñu dara parrainage bi pare guñ ci waaw ak itam li ñuy laaj ñu joxe ko question ah, loolu tam noppee guñ ci yooyu yëpp nag waaye teewul ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy samp seeni ndënd gaa yaa ngi samp ndënd yi eh, di wax ni ñoom dañoo bëgg a yor réew mi waaye daal xam naa ne yorum réew di warta yomb parrainage bi baax na waaye it moom daal mu ngi noonu ku bëgg yor réew mi daal jóg rek na dama yor réew mi ah nañ bàyyi xel ci loolu moo tax parrainage bi bu fekkee jaar nañ ko ci yoon baax na xam naa defe naa ca dialogue ba waxtaane woon nañ ci ay tomb yu am solo waaye ñun ñi nga xam ne nag ñooy tànn naka falaka folli sunu borom ne na yowmal xiyaam balaa laaj ñiñ faloon ñun ñi fala lay laaj fala nas alanna lazina ursila ilayhim wala nas alanna al mursalin nee na balaa laaj ñiñ faloon day laaj ñi fale ba noppi am maqaama Ibrahima. su ko defee ñi nga xam ne ñoo bëgg a jël réew mi ëllëg mbokk yi nañu indi seeni programme bu ñu campagne gaaral ko nit ñi nu wax ñu lu ci nekk lan lañ ci xalaat tëral ñu ay projet de société waaw ñoom ñëpp su ko defee ñun programme yooyu ñu tànn ci kenn tànn ci kenn. waaye sëñ Mbàkke ba fi nu toll nag waa Bennoo Bokk Yaakaar tànn gunu tànn gunu officiellement dégg guñ ñu ne diw mi lañ tànn dafa yombul nag daa mel ni man ni ma ko jàpp woon mooy waroon naa yomb keroog ñoom Abdou Mbow di wax ne ñu ñu tànn ñu jël te kenn bañoon a proposé kenn su ko defee ñu tànn kenn moo xam ca parti bala bokk moo xam ci benn bokk yaakaar la bokk fu mën a bokk rek war nañoo may président mu tànn kenn xataa bu fekkoon sax def ne tànn naa leen Alioune Sall nu mm, wàcc ma ci géew bi mu seet ba xam waaye tabarkàlla nañ ma tànn ku ci ne nañ ma tànn lool nag mooy indi jafeñ-jafeñ bi ba léegi moo tax sëñ Mbàkke euh, xamaguñu ci liñ déggagum ne diw mii la ñu tànn ñu ngi toog rek tabarkallahu di di di xëccu ku ci nekk ne ku ne na sama kër lay jaari maa gën a ci gan gu toll ni rasulillahi yallaahu ca noon yanaa giri giri ca tàkkusaan la gaal ga daldi koste dun bu ñu naan tabong mara njeyu konte lay ndeysaan sëriñ bi génn na réew mi ca tukki ba ma nga ca bitim réew xusóor yi xalat ahlu an yi tafarraqat ndeysaan waxtu la may taxaw ñu liit mu déqi ilaa Konaakiri tubaab yooyu soqi mhm. midi la gaal ngay teer fii Grand juróomi fan lay am ilaa Kabla Bisa foofu la daa wàcc fanaan bi sërwali bokk na ci liy yéeme ci xasida ak maam Moussa mi géographie bi muy wax waaw géographie bi muy wax réew yi muy tudd nii maam Moussa ko rek ba ban setee Cheikh Bamba xëy jëm romb Lagos ca tubaab yay armée fii la français yem coowa waxtu <laughs> Cheikh Bamba weyta mosta tiimal waxtu malaka ni inda daw mi maa xëkk idaata saw mi keroog bienvenue sur Sud la Bamba tabi géeju Congo kab la bisa la gongo bienvenue sur Sud FM ila nabi fi kab la maaxit kafaani addun woo bésa tubaab ya naa yàlla gabam di ñëw na mu mel ni gaay ndeg si bi góog dàngañ na ilaa Serigne Mbacké kon loolu mooy juróom-benn tomb bi mooy dañaa ngi waajal présidentielle 2024 mi ngi mel ni suba la mi ngi mel ni subala la coow laa ngi ne kur waaw mi ngi mel ni suba la kii dana bokk kii du bokk kii dana bokk kii du bokk waaye mi ngi mel ni suba la alakuli xaal yàlla nañ càggate weesu ko yàlla na nu jig nu jig ko ñëpp ka daa raamal ni gaa yi ñu fam ke keroog dal koy jëmal gouverneur munoo ko déplacé nañu ma bu fi teer euh, ilaa sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke juróom ñaareelu tomb bi mooy tey ñi liggéey ci média journalisme ak lu ci aju xibaar ak yu ni demee rajo yeeg télé yeeg ñiy bind dañoo tàmbalim ndaje tey fas yéene def ay assise national ndax jot na waxtaani méccam journalisme waxtaani méccam xibaar waxtaani économie bi nekk ci méccam xibaar jubbanti dëng-dëng yi ci nekk xoolante ci seen bët wax loolu day am na solo loolu ci métier moomu sëñ Mbàkke ba ma xamee Sud FM mag tey ba 9h jotee ba 10h jàpp 10h et demi dafa am réunion bu ñu tuddee réunion bu rédaction jamono yi eh, Ndeye Marème moo ko jiite waaye boo fekkee ñuy réunion da ngay ni ñii bu ñu fi jógee kee day ñibbi. day gedd ñibbi lu tax parce que li ñu bëgg a wax danañ ko waxante professionnel nun lay def waaw li ñu bëgg a wax koo xam ne def nga xibaar boo xam ne da ngay xarmat xibaaru xarmat <laughs> waaw xibaaru xarmat wala revue de presse xarmat ah oui reportage xarmat publi reportage boo xam ne bi jom daañ ko xam boo ñëwee naan hee sa sa xibaaru démb bi jëru ko woon ndax nangam nangam bu ko defee nga sëgg bu def bu benn yoon doo ko def waaw parce que mu nga xibaaru xarmat baaxut <laughs> xibaar boo xam ne bi concerné wul kenn ku dul Pape Dieye nga di ko waxal Pape Dieye lu lu koy doyee ah Pape Dieye jënd na mbaam démb waaw léegi mbaamu Pape Dieye moom jënd démb léegi moom <laughs> ngeen baal ma nag mais waaw leen góor yéen ñu daje assise national lu jëm ci média yi ndeysaan ah gaa yi fi nekkoon te doon yëngutu ci loolu waaw jar nañoo bàyyi xel lool ndeysaan xibaar daal mu ngi noonu professionnel moo koy def génn ci école bi def métier métier professionnalisme feeñ ci bu baax a baax ci liggéey bi nga yëg ne yow kenn wóor moom. da war a moome nga yëg na journaliste xajul ci association association yépp na xaj nañ ci journaliste lu am solo la ala kulli xaal sëñ Mbàkke gaañaa ngi daje eh, bu sunu tànk waaye fee nun tam daañ fa dem wax ci suñu xalaat ndax métier mu dafa am cosaan ci alquran wala qad wasalna xaw la moo koy tekki boo jàng suratul xasas la tàmbalee ci wala xad wasana wasal wasal naa lahumul xawla ba baa nga jeexal saar bi lépp lu jëm ci journalisme professionnel rek ma nga ca waaw malheureusement mécc penc bi day aada da wax ci mango ñu dégg la ci dara kase dangay wax ci màngo ñu dégg la ci dara kase affaire bu métti nag la ni jigéen di méttitloo buy buy buy buy wasin nun la borom xam-xam yi di méttiloo ci méttiloo ci penc bi yàlla xam na ko bu jigéen di am doom méttit yu mu yëg loolu la boroom xam-xam buy waxtu duñ ko dégg nun la mel waaw xam nga koy wax ci mango ñu lay dégg ci darkase loolu sore na lool mango darkase doom yi de xam naa xaw nañu niroo tuuti de waaye ak ñoo wuute kon métier maa noonu ñi ci jaaroon démb tabaarakallaahu ñee def esport ñee def économie euh, tabaarakalla desk bu ne am ñu ca nekk dañ ci bàyyiwaat xel baax a baax a baax gaa ñaa ngi cee daje bu nu noppee xam na euh, nu sunuy carte professionnelle euh, nga xam ne ku ci bokk ci métier mi am ca ku ci amul ñu jàpp ne bokkoo ci te bañ koo bañ koo kii daal <laughs> sëñ Mbàkke loolu tomb mooy tomb juróom-ñaareel bi ilayka mas naa dikkal sëriñ ba sotti ko ndox mu doon sobeek sàngara buusu ko tox ndeysaan xam ngeen loolu métti na mbokk yi naa ko ma ndox mu laab ak saabu waaw Sidi Mbambu mooy tukulóor ba daan commandé poste ba ba maa taxoon ba faatuwul ca peste ba waaw waaw ndeysaan moo ko fa daa rootali di duy ay satalaam di doxi ay soxlaam joxante salaam salaam ndeysaan du ma mbay aaya ko rootal bamba du ma mbay aaya rootal bamba ngir bon nga ak kañaan ga fa maa yomb ndeysaan ma nga naa ko deeka service bu nekk ak sa talaam nay mar bu xiif bu mu lekk cëy si dee nga naa ko lépp luñ ma fayati ci sama weer moom laa ko faf di joxati keroog <laughs> loolu moo moo moo moo moo rusloo si moo rusloo euh, Dudu Mame Mbaye daf ne Sidi Mbambu sëriñ bi boo xëyatee na nga ko duyal satala ndox képp nay xiif nag na mar bu mu lekk Sidi Mbambu daal ne dudd ma mbay gis nga man su ma liggéeyatee bañ fay ma sama solde moom laa koy jox addiya laa koy jox mu daal di faral jébbalu def ba waabu. Seex Bamba jàll réew mi wéy maa yomba waa réew ma naa bu leen fi indi Bamba. gale gabam jaa ku wax ñu ne la baate ñu sànk na ngeen xam yi la. li ngeen dégg mooy Jasaw Sakkuuru géej gi maam Moussa Ka pël bi jàngal wala fii pël moo ko bind. ki ko yëkkati ne mooy Moussa Gueye yàlla ko yàlla yokk wér kii di Moussa Gueye. kii di Ablaye Seck ah ndeysaan eh, kii di Xaadim Géey kii di Muntaxa Géey ci ci roq boobu ñële di ñoom Abdul Aziz Mbaye ci roq booba ñii nekk ci pencum lay nag ñu nekk Kaolack ah bu ñu xamoon li ñu di def tey ñoom ñooy am parking yi ñooy am air plus 4 yi malheureusement ñi nga xam ne ñooy ndagar wala ka taasoog dugg naa génn naa yëg naa ci kaw wàcc naa ñoo ñoo moom 4-4 yeeg R4 plus 4 yi waaye nag dox leen rek dox leen rek oustaz Taïb Socé nee na tel na ko yàlla yokku wér nee na fii de mën nañ fee ñàkk dégg hymne national nee na waaye ko faatu ci ñi nga xam ne ñooy doxal diina ji di ko jàngaleekat teg ba taxaw yamul xam ñu tëggale hymne national te mooy suratul fatiha ñun ñëpp nu xam waaw tabarkalla <laughs> oustaz Taïb Socé moo nu ko wax yàlla na ko yàlla yokk wér jeex na takk ala kulli xaal ndajam sonal si mangoog jësaawu sakkoor a ngi nii ba daam sëlmalee ni sàmbalaw ak xiram yi dañ lay jommal waaw bëgg mul xam tuut ñi dellu si mun naa ko xoolal xar baa xaman leen ma feeñal ndeysaan cey ñu dellu leen dugal saxaar ca yoor yoor bisib di beer ñu jàll romb wiir wiir ñu bool leen ñoom ñaar ci diggu bël ba mm-hmm. ñu ne fa cundum faaf ca diggu dun ba la seen xiram ya ser di yuuxu jinne ya bokk xaar ci bambaay seexu keroog la Bamba waxoon bu géej ga. bienvenue sur Sud FM. yaa baxru waaw waaw. xamal ni ñii dañuy wax lu yàlla sàkk. jàngal wa in min sey te bul ko sikk. bul ko sikk mukk ndax Omar ibn Xattaab keroog ba mu ñax nekk ca xilaafa ga dafa fekk dexu niil gee nekk ci Égypte at mu jot ñu jox ko juróom-ñaari jànq defar jànq ji waajal leen létti leen tabarkàlla woyal leen dugal leen ca dex ga noona ñu ñu suux ilal abadi bañ ko waxee Omar Xattaab mu ni yéen géej gi daf ñuy fonto daal di koy bind lettre bind lettre géej ga ne ko tey ngay mujj amub jànq <laughs> maa la ko de tey ngay mujj amub jànq de waaye loolu la maam maam Sëñ Tuubaa wax géej gi laatu tusallit laatu tusallis gis nga yow géej gi bu fi gëm ñetti yàlla ñetti yàlla mu fi jenn yàlla fi am waaw jébbalu ànd ak bamba delloo sàmba waaw jinne yee jébbalu yëpp taal si naas la moo min jinne asrin min jinne asrin doona ma lam yaslimu joojo ayoog daje roog na dongom ya na baayoog dongom ya kakku na koog kaliro koog morom ya askinu xal naa ak nooru tamti moo tax yéen taalibe yi bu ngeen góorgóorlu wu taalibe yi jinne góorgóorlu rek def lañ li sëñ bi def lu sëñ bi daa amoon taalibe taalibe yi nit ñu ngi fi ba tey ak taalibe yi jinne taalibe yi jinne ñu ngi fi ba tey xam naa war nañoo yokk parce que juróom-ñaar la fi lim wala juróom-ñett defe naa jinne yooyu ak seeni doom ak seeni doomaat 1800 ba léegi y'a bokk de jinne ici waaw jinne yu bare bare bari waaw jébbalu ànd ak Bàmba delloo Sàmba kiri durus <laughs> xuraana ba mu xëyee ndeysaan ba mu xëyee di wéy la xuus ci bul ba romb fa Serigne Mbacke boo xoolee sa man suñ montor fii 23h moo jot ba tekk 46 minutes léegi te njëkkati jataay bi ndax téléphone amut waaye daal euh, maa ngi ci Ila Mbacke Sylla fi Amerika. juróom ñetteelu tomb bi sëñ Mbàkke saxaar gi delsi na ndeysaan yéegaat ci raay bi waaw ila Touba waaw awdatul xitaari ila sikakil amsaar saxaar gi déqi na ndeysaan saxaar gu rafet nag war a nu war a yi dugg saxaar Pape Dieye mi nga xam ne amul paas lu am dem waaye màggal bu saxaar ma masaanu jub mbakke génne génne eh, ngaabu waaw génne ngaabu ba dugg mbàkke bari korne boobu mu daan def <laughs> bu ñuy nekk ndaw non ndeysaan xam naa semaine bi ñu ñëw ci lañ koy defaat bu jógee mbakke ba tolloog daaru salaam defaat ko bu demee ba gaar bu ndaw dëgmal gaar bu mag defaat ko ndeysaan loolu lu neex a neex la ëllu train maa mbay tunkara ñoom yàlla na gën a yaatu ba nu delloo ko mu dem géngi new waaw tabarkàlla jaar gañik jaar jurbel train bi demaat ci réew mi yëpp Louga Linguère dekki Louga Linguère train boobu dekki leen góor yéen ñi dëkk fi terrain train bi nekk nag ngeen xajal te train bi ndax nun ñëpp ko bokk bu leen buuxante ni gaay Ibrahima daldi ko marmaral deree di saaga ba ñu dellu see ñu fekk daamu hunaaka karte ga booloo war ko daam di julli gaaye badar yo waru ko leer ya jolli ndeysaan cey keroog la wa yaanaaru ko nii barda wa inna ni husni fa saara farda mhm. sa bamba jàll réew mi wéy ba galwaa keroog la tàggoog na tooki balwaa shaqala seytaane nda galwaa kaw nu xadima man kabaane balwaa tubaabe jàllee ko yóbbu ko daw mi mhm. mu sax weeru koor ilaa sëñ Mbàkke si la fii di dog xamewul woon sa baana ak weeru koor dadaa durus xuraana ndeysaan cey sëñ Mbàkke tomb bi ci mujj te ñu la koy yëgal te nga nekk foofu ci Amérique nu nekk fii mooy am na lu fi tudd BRT BRT bi raam na démb ndeysaan benn kaar bu rafet tugg gudd ndeysaan couleur yi nice waaw <laughs> xam naa bu jege woon Koonoon wala daaru ci bu moom sama oto noppalu dama koy def ni tubaab yi rek dawal ba ca gaar ba nga gaare bàyyi fa sa oto dugg ci train bi ilaa Dakar wamin Dakar ilaa Daaru Cubb ah, wala bokk ilaa Kër Mbay Fall wamin Kër Mbay Fall nga jël sa oto ilaa Daaru Cubb BRT bi commencé na am na nag ay jékki-jékk lak defar defaraat waaw xanaa waxtaan rek ak ñi nga xam ne dañoo dëkk siwaat ci wetam waaw ndax daal moo nga noonu yàlla na lépp àgg ak jàmm nu muurloo ko di dem ak dikk suñ bàkk su ko defee bu suñu pétrole bi commencé gaz bi commencé <laughs> nuy tànk di jaay di tànk di séddoo di tànk di sotti ci oto yi yu bare bari mën naa dañ def ni ni Dubaay waa Dubaay mel quoi waa la ko wax di tànk di rattaxal suñ tël yi di tànk di rattaxal suñ tël yi di tànq di jekk-jekkalaat mbedd yi waaw macha allah yàlla na lu jig waaye sëñ Mbàkke nee na danoo teel a ñëw <laughs> sëñ Mbàkke nee na danoo teel a ñëw mu ne ko loo bëggoon mu ne nu bàyyi ba nuy tànq nu door a judd ndeer yi loolu <laughs> lee sëñ Mbàkke koy wax rek kenn mosu koo gis yaabetuni kul wali karoog la way wasilatu rubaya fi daxal askari lin nusoya قد قال موسى خادم الخديم لمن هوى تقدم الخديم lay ndeysaan jasaawu sakoor ngi noonu mbokk yi ilan sababi taasimi yow ma xurooji seyxina sëñ Mbàkke loolu moo doonoon tomb yi ma dajale woon bëggoon la koo jottali foofu yooyu fi xew sa ginnaaw yooyu moo fi xew sa ginnaaw tomb bi ma mujj mooy BRT bi ngi tàmbalee raam bu ko defee ñuy jógee Géejawaay du ko mën di jël ba Dakar wa min Dakar illa Géejawaay te itam ay téeméeri téeméer lay jël par ay junni junni par bu noppee fekk si suñu Air Sénégal bi fekk si fi TER bii ah yàlla nañ ci góor góorgóorlu rek ñi jiite yooyu nag ñoom it bàyyi xel ci lu ca ruuse na ca dellu sëñ Mbàkke sama tomb juróom-ñeenteel maa ngi ci doon wax ne terrain bi dana dellu si incha allah euh, ci màggal gi waaw ndeysaan am na ñoo xam ne fekkiwuñ ko woon sama juróom-ñaareelu tomb sëñ Mbàkke maa ngi ci doon waxtaane ne journaliste yi daje nañu pour waxtaani métier mi juróom-benn tomb bi sëñ Mbàkke maa ngi ci doon waxtaane élection yi 2024 yeeg ni ko gaañ yi di waajalee juróomeelu tomb bi maa ngi ci doon waxtaane taw taw beeg mbedd yi ñeenteelu tomb maa ngi ci doon waxtaane tabax yaa ngi daanu ba léegi tey rey ay nit ñetteelu tomb bi sëñ Mbàkke maa ngi ci doon waxtaane ne eh, accident yi mu ngi continuer am ba léegi ñaar lu tomb bi maa ci doon waxtaane gone yi dem Europe dégg nañ ne am na gaal gu suux wala boog gaal gu ñu bari faatu téeméer ak naa nga ma ci nekkoon fanweer ñoo dellu si tom bu njëkk bi nag ci laa doon waxtaane waajaayu lii ngeen di dégg sëñ Moussa Guèye di ko yëkkati turandoom maam Moussa Ka bind ko moo di lelum sëriñ Basiru mbég ma nee la yàlla defaloon kalima bu subaa ak jàmm bu nu xëyee daal di xëy ci safar gi mag Oustaz Alioune Mbaye ak sunu gan am Diop bu Ali bu Touba TV. خدمة الخديم للمقدوم في البر فرل إلى تعزيم لدام يسر jabóoti yoonu géej jalaay bëgg wax ñu xam ne Bamba géej waaw waaw moom mii yàlla may na ko lool tubaarkàlla ci ni muy yëkkatee xasida du yàq araf yi du ko tooyal déedéet du ko tooyal te itam euh, fu mu war a yëkkati dangay gis da ko yëkkati ndax ñi jàngale musique ci Remo Fala xam nañu nan la ñuy yëkkatee ak nu ñuy wàccee ñi jàngal xuraan xam nañu ko ndax am na laay yooyu dañ ko yëkkati am laay yooyu dañ koy wàcce dañ koy baaral Moussa imam Moussa Guèye mii loolu xam na ko dali sampi daara te dong ñaa jigéen ña mel ni saara mhm. sira moon ak saara yandu caawo ndaw jaxaso bambara fet ak caaw mbokk yi ngay xool seen montor kon 23 heures jot na ba teg 55 minutes su ma saanu jot ci li njëkkati jataay bi eh, tabarkalaaw ci xaaj bu njëkk bi waaye xaajum ñaaral bi dafa xaw <coughs> am kii rek moo tax waaye balaa yàgg danañ ci dellusiwaat di man di ubbi téléphone yi ànd ak yéen tey jotaay baa nga tuddoon Ila Mbacke Sylla tabaarakallaahu ci tomb yooyu nga xam ne bu fi nekkoon moom lay jéem a jëmale ci nun màggal gaa ngi ñu yàlla ñu fekk bi dem yàlla nañu fi bàyyi te fekk fi Cheikh Sidi Muntaxa euh, tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla yokku wér ci taxawaay yeeg ci position yeeg ci yëpp rek rek waaw yàlla na yàlla sàmm nu sàmm ko sàmm leen amoon na fi gan euh, seen beng Cheikh Ibrahim am nañ fi gan Lamine Kande am fi gan Pape Dieye dañu yëkkati jataay bi fii ñaan barke ak tawfiix lu jub ci wax ji sunu borooma lu jubut du moom man mi yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen te may aafiya ak wér-gi-yaram sunu mbokk male eh, imaam Ablaye Ndaw ca Ndànd yal na ko yàlla yokk wér mbokk yi yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te def ci sunuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu